waaw nii laa toogee tey lu ma defa garaaw quoi ngelawal couture moo ma ñawal Mour njaay ngelawal kotiir moo fi jaar quoi moo ma ñawal Mour Ndiaye sama xarit sama doomu ndey. maa ngi koy sant gërëm. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla nag julli ci yonent bi. sant suñu ñetti waajur. sant suñu pàpp bu baax a baax a baax a baax. sant suñu yaay bu baax a baax a baax. sant suñuy maam bu baax a baax a baax lu ko deree ci Adama ak Awa ba ñëw jëm yàlla tey ñii nekk ci ñoom. di sant seen bu wér nag. gën ci mbindeef moo gën ñëpp gën ñëwoon te gën ñi bëgg a ñëw naa Mohamed gën ñëpp gën ñi woon te gën ñii bëgg a ñëw di bëgg àdduna nag Ouzin palaato bi comme mbër bu fi mës nga man la fii daan naa la. waaw noo dama lay leeral rek plateau bi.

waaw mais làmb moo baaxul noonu Ouzin xumbal bi daa am fu mu yem Ouzin man damay yóbbu mbooloo damay yóbbu mbooloo moo tax dinaa xumbal nag signature neexal mais du tee bu ma ñëwee ci diggoo bi même su may daanu dinaa def jom ful ak fayda parce que dafa am ñi topp sama ginnaaw man waruma def erreur ci làmb dama war a bëre daanu ñu ne jàmbaar la ma bëre daan ñu ne xamoon nañ ko ndaanaan la. waaw. te waaw mais xam nga loolu la moo ko waral. comédien bi gars yi ñoo ko jàpp ñoo ma jàppee comédien mais maanaam dama lay xamal ne Ouzin làmb léegi dafa am nu mu baaxoo mënoo ñëw nii rek bokk faa nga def sa stratégie teg say pion ba génn ci mais loolu weesu nañ ko daan nañ def lu ñu def avant ñoo am licence di yëngal xumbal mais instant bi ay mbër kaamil lañ balaa ngaa xam gars yi jox ñu ci poids lourd yi. waa gis ma dama xam sama bopp dama xam lii topp suma ginnaaw moo tax lamb du ma ko caaxaanee barki Seydina Mohamed xam naa 5 tonnes pion gàmbi la maa ngi koy nuyu bu baax. xam naa ne dafa nooy nepp nag bu jëm séerase la ñaaw dee rafet dee moo tax nekkuma fa sax di yàggal sama bopp moo tax arbitre sifflé ma waaw dama cay dama cay jàng boxe damaa dem Thaïlande siin ne woon naa ko bu ñu bëree pare foo ma romb di nga taxu di ma xoolaat di sant nag sama gaa yi nekk Siin Pékin waa Cangbao 36e Sambar sawlin ñoom ñoo ñëwoon jàppale ma ci combat bi jàngal ma xeex moo rek gisoo 5 tonnes dama ko dóor ba mu noyyi ma jàpp ko daan ko. waa arbitre bi sifflé man xale laa 2006 a juddu. waru mu mën a xaar dara ci làmb bi dafa war a siffler ma dox sa kaw ak noo mën a toll ma dox sa kaw xeex ak yow jàppale bëre daan la ñibbi te arbitre bu mu siffler dama dox ci kawam xàcc mu gëmm ma xam ne dama dama xàcc mu gëmm ak ñaari loxo yi dama xàcc rek mu ne nii ma xam ne kii dara neew fa may dóor rek muy neex ma continuer. ma fayul seetaanoo vidéo bi xanaa combat bi benn dalu ma yow sax da ngaa gisoo may daw yëg tribune bi. <laughs> bilaay walaay mais dama am lu ma nakari nag. mais dama bëree pare daaw dama bëree daan bébel tonne. yëg ci tribune bi am soixante-quatorze mille ci xaalis ñu ma may ma dugal sama ngemb. ma ma cinq tonnes waaw daw yëg tribune bi. Eh, gars yi may ma mille cinq cent. yaa ngi cinq tonnes. maag cinq ñu ma de parce que taw bi yaa ma gën a xam. mais dama koy sant yàlla bu baax a baax a baax. la laa ci am mais dama koy sant yàlla. si sama maaraay tamit ñi may ñaanal bu ma leen wooyee comprendre nañ ma. waaw mooy loolu. non non non fay naa de mais dafa am nu mu demee yaa ma gën a xam mais teewul dañ may ñaanal ba tey. mais Ouzin dama bëgg a bëri ci ponkal yi man ci catégorie poids lourd laa bokku jam téere amul komba Gabarsin amul ko dañ ko doon mu daanu barki démba euh, Gorosok fils de Balla man ci euh, King Kong bu Fass man ci catégorie poids lourd yooyu laa bokk. waaw man pour pourquoi war ma mën a dugg foofu. man a ñoom euh, euh, ëpp lan lañ ma ëppalee Ousseyn man ci catégorie poids lourd yi laa bokk Ousseyn. non même bu góor a bu ñëwut. Ah. Fils de Balla jamteeri kere bu ma daanee mu andi Fils de Fils de Falang jot nañoo roofante man ak moom foofu gars yi doon suñu diggante jamteeri nañ ñaataat bëriwul na ñëw ma bëri Malick Niang mii gars yi di coow pare naa pour bëreeg moom nañ ma ko jox. nañ ma jox ci poids lourd yi ma bëree dama xam ne samay moroom boobu ba léegi Ousseyn Waas man waruma toog saison bi tijji Waas boobu ba léegi ñu may laam-laamee. non mais est maanaam noo parce que buntu kër gu ñu fëgg ñu ne day dooree. waaw buntu kër gu ñu fëgg ñu ne Waas day dooree. waaw mais pour quoi booy di ma daw. Yilla baaba na ñëw ñu bëree Clémenceau na ñëw ñu bëree. Rawane na ñëw ñu bëree dafa amal bal bawol yi bor. Hmm. na ñëw ñu bëree. barki Seydina Mohamed billaay wallaay talaay bu ñu ma wooyee suba suba ñii ma lay proposé. lamb du ko dàkk Ousseyn waas si bés. ne woon naa la ñi fi ñëw ñii ñëw di toog fi yëpp di wax waas bu fi ñëw dina xam ne ñoom dëkkuñu fi maa fi dëkk. mais ñooñu kenn xam nga man man man tollatuma ci làmb ñu may promoteur di ma di ma woo ci ay boo yoo xam ne kenn xamatu leen. non man ñooñu xaw ma leen. man bu may bëri damay bëri ñoo xam ne làmb xam na leen. Ouzin man cinq combats laa bëri sama maay bu may sama premier combat maa ngi ko bëri jour combat euh, Bébé Saloum Franc boobay sama premier combat man ak doomu Kunun. ma daan ko sama deuxième combat ma ma bëri ko man a bébé Cheikh Mbaye ma daan ko sama troisième combat ma bëri ko man a bébé Zabu jouru jouru kalaafu idaali bi mooy ñoom yankaaw ak gars yi seen kalaaf bi kaaw gourné ma bëri daan daan daan bébé Zabu ma ñëw bëri bébel tonne Iba Mar Diop yóbbu ko top 5 5 tonnes moo ci mujj 5 combats yooyu laa bëri pourquoi pas gars yi mënuñu ma jël ponkal yi. waaw. Euh, waaw parce que man ak moom làmba la dafa fi dara daa daanu ba tas dafa daanu ba tas man ak moom làmba dàqu ko barki Seydina Mohamed ëpp ma coow dàqu ma bëri gënu ma siiw waaye Ouzin wax ngay waxal de man homme de baza amul lu mu amul ku mu mënul duma xool gis nga moom man 9 mètres laa amul ku mu mënul dumal ci làmb ji dama la ne làmb jooju ku ko tëgg tëgg làmb guy 95 man bu ma ko demee tëgg buñ man moom buñ jotee rofoo esaat sama booy ñëw nañ. ne kii mooy kan tapé turam YouTube buñ tapé ay mike la ñu gis. ay mike la gars yi gis guy 95 buñ ko tapé ay mike kon xam ne ko ma siiw man waas boo tapé samay vidéo vidéo waas ngay gis bu muy rey gars yi di leen duma moom buñ ko tappee ay mike la gars yi gis kon tey bu bëreeg man dama koy may coow rek mais moom mënuma ma yóbbu foo xamante ni mooy loolu. mais waaw mais est-ce que bu baax yi nga wax di bari mais man adversaire ñu may wax ñun laa dul bëreel man lu nëbbuma lu may wax man dama bëgg gars jox ma lu saf sap dama sonn ci lay peewle Gambie quoi dama leen a daan daan ba doyal dama sonn ci peewle Gambie. mburu faga dagay laa bëgg a jox ma xam ne dangay ngay xëcc muy ñëw yooyu laa bëgg gars jox ma ci. waaw gannaaw non mënu ma pause Ousseyn mbooloo moo may topp bu ma toogee rek gars yi bu ma toogee Ouzin gars yi rey ma ma dee entraînement midi matin soir munu ma toog yow yow yow yow yow ñëw nga sama koñ gis nga booy lu ñuy daj takk affiche yi banderole yi koñ ba dem ñëw kon man man dama bokk ci làmb Ouzin barki seen am xumbal bi neex na nag débat bi neex na mais heure bu ma ñëwee ci géew di lu ma war mooy jom ful ak fayda moo a gisoo bu ma duggee ci géew du ma ree du ma siñ damay def jom ak ful ak ba keroog yàlla def lu muy def ma génn ci jàmm man noonu laa xam ko ate noonu laay doxee ci làmb commencement bi nag dafa am làmb lu mu demoon laaj mooy maanaam ñëw yëngal ba bokku làmb gis nga mbër buy bëree sans combat te kenn xamu ko gis mbër buy bëree benn combat gaa yi xam ko lan moo lay may yëngal ak sa wax tey noonu laa duggee ci làmb moo tax loolu même bu ma demoon ba am ay milliards ci làmb tamit duma ko bàyyi. waaw mais xamul nga tax mu dem ñun ay ndaw lañ fu ñu taxaw suñu deret day yëngu Ouzin noonu demee quoi moo bu ñu duggee. waaw parce que bu ñu duggee ci làmb faaw ñu jéem a suñu bopp. parce que dañuy dem ci làmb tey barki sarf ay centaine de millions personnes fu ñu tourné ñu ne ñu waasa ngi ne kon xam nga loolu du ay caaxaan dama koo jaayante ci Euzene tey soog a ñëw su ma sañoon daal Ouzin gars yi jox ma poids lourd yi ma bëre Gabar Singh na ñëw ñu bëre. mais parce que maanaam dama dama gis nu muy rayantee dama gis nu muy rayantee Ouzin man dama bëgg a làmb joo xamante ni deret bi dañuy sànq ñu suul tànk yi nengeñ bopp bi jëflante sokkante man lamb jooju laa bëgg Ouzin ba tey mënu guma ko am boo xam ne dañuy ñëw suul bopp yi nengeñ tànk yi. waaw ba usine technique. non ñooñu du ma bëri ñooñu ñooñu kenn xamu leen. waaw man daal ñu ma la wax nii daal Yile baaba mun boo bëggee mun naa limal douze adversaires Yile baaba bu Lamsaar pare naa pour bëreeg moom rawaan bu parcelle pare naa pour bëreeg moom Kéléma bu Grand pare naa pour bëreeg moom. jam yi bu ñëwee ma bëreeg moom quatre ans ma ma bëreeg moom dañ ko dóor mu daanu dama koy jàppale rek. Ah. waaw pare na. waaw mu ngi waaj am na combat ñu koy ñaanal suñu borom suturaal ko mbay nga noonu lu sedd suñu grand la mbay ñu ngi koy ñaanal. non dina yomb parce que xam nga gars yi làmb liggéey la rek te moom mu ngi liggéey xale la mu ngi liggéey quoi dañ koy ñaanal suñu borom suturaal ko may ko ndam lu sedd guy ci kàttanu yàlla ak mbaaxam man na gars yi dama bëgg gars yi wax ci man Ouzin dañoo war a wax ci man. dama cee bokk Ouzin barki sër balaa nga xam Ouzin lamba am Iba Mar nga xam kuy waas. waaw waaw mais yëngal gars yi te man bu ma ñëwee rek amateur dañuy kontaan tey dañuy xam ne tey dañuy dund làmb dañuy dund làmb quoi Ouzin lu ma def ci làmb jafe na Ouzin cinq bari laa bëri cinq victoire Ouzin yombul daanoo guma ba léegi foog ba nga ba nga xamee laas ba léegi mosoo gis ngeen mam laal suuf nañu waxee dëgg ba léegi essai bu. mais loolu du du daan làmb daanu ñu ànd mais bu ma ñëwee daal naa rek jom ak ful ak dinaa liggéey ànd ak samay mbokk liggéey lu ma war a liggéey yëpp. wul Ouzin mun naa mun nga ma gis nii jël ma xeeb ma de mais bis bu ñu duggee ci géew di nga xanaa ki nekkul woon fii. nee na damay sant waa waa waa Cangbao Thaïlande Sine 36e Sambar dañ may jàppale Ouzin. wu leer laa lay waa Pékin dañ may jàppale. di sant nag sama patron Ibra Thiam gisoo temps yi nu ma leeree place ba la ma jël teg ma fa sama heure entraînement bu jotee ma dem entraînement di lekk ba suur di tëdd fu nooy Ibra Thiam aw ma fayam. barki maam Seré Fall ngeen di bool lay jëndaañ damay dóor dóor ba ba polomé ndekki bu ma demee jëli kaa daf may ne loo bëgg ci ñebe jëlal pompiteer baxal nenu baxal lu ma bëgg maay jël wóor na yàlla dama koy sant di gërëm. di sant nag sama waa koñ waa ñàccukeer ñooñu aw ma seen fay falaa laa juddoo fa yaroo man Dakar Plateau laay représenté su ma amee combat gaa yi dañ ciy sonn bàyyi seen lépp ñëw yow ñëw nga sama koñ waa daal lay waaw sama jour open press dañ ma woo may kado quoi mooy loolu waa yaa ma gën a xam. mais Ouzin damay santaat sama waa koñ bu baax a baax man xaadar pire laa waa kër Cheikh Mohamed Kounta laa maa leen sant di gërëm waa kër Cheikh Mohamed Kounta laa di waa Touba may dal Touba barki lu ne lañ may jox bu ma demee Touba waaw lu ne lañ may jox aw ma seen fay waaw dañ may jàppale di sant nag sama waa dëkk waa Thiawoune Kounta waa Thiawoune Bambara sama yaay fa dëkk région de Thiès aw ma seen fay di sant sama booy nekk Fass mbaaw waa kawas yi waaw yaa ma gën a xam quoi ci bal fëgg jaay bi laa ko jëndee barki démb mooy loolu waaw mais Ouzin gars yi ma war a jël ko quoi may ma chance ma bëree rawan na ñëw ñu bëree Ouzin ñaata at bëriwul huit ans xaw ma neuf bu dul loolu bu dul loolu waaw man moom amul problème na na ñu may proposé na def nañ def ay palmarès comme man man amuma problème boobu man bëri làmb laa fi nekkal parce que xale laa teewul maay sama métier maay sama liggéey mais sama heure jot bëri bu jotee wala sama heure entraînement damay bàyyi lépp dem entraînement ñëw bëre parce que tamit mënoo nekk mbër rek nga bëgg a bañ a basé wu ci dara loolu du du demee noonu. day am métier man damay xëy dam jaay ne ci magasin liggéey su ma wàccee dem entraînement su ma amee combat pause ba làmbay jàll ma continuer sama liggéey sama patron nangul ma ko xam loolu lu yombul te teew lu ma bëgg a def ma koy def ma koy defal waaw. waaw kàddu yi mu mujj mooy wax mooy maanaam di santaat yàlla rek parce que ñun làmb buñ ci duggee ba léegi yàlla mu ñuy sutura amaguñ ci dara nag dafaguñ fi dara. mais yàlla mu ñuy suturaal tamit ñu ngi ne ci mbir bi yàlla ñu ñu ñu ñu ngi góorgóor di avancer nànk-nànk kon tey lu ñu war mooy ñu yokk jom yokk fula yokk fayda ba gaa yi nekk ci kaw ñu mun leen fa fekk parce que ku yokk da ngaa wàññi te man koñ bu ma dëkk musul am mbër man kese maa fay mbër ñëw nga fa yow musul am mbër man kese maa fay mbër maa fa ut licence fexe ba doon mbër kon tamit làmb lu ma mën a fayee tey dama koy nangu xam ne man maa opté doon mbër. mais du tee daal bu ma ñëwee naa def jom ful ak fayda guy 95 mi toog fii léegi ma ne moom làmb la làmb dàqu ko barki Seydina Mohamed làmb dàqu ko mënumaa bañ ci làmb parce que gënumaa siiw waaw su ma sañoon daal am adversaire bu baax boo xam naa mën a jëflante moom suul tànkay nengañ bopp bi sokkante moom ba bër set ba ma sañoon loolu laa bëgg quoi. beneen yoon ak yeneen bërëb ci Jamarloo jaa ngi